Nous, na leen bu baax fan gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yal ko yàlla ñu def ay seetlu solo ci li xew CDC vraiment li lay njëkk dal ci mbir yi mooy man bokk da nga dul nawati ku ñu intellectuel sax haut wala yu mel noonu di aj di kaweel yàlla xam ne ni dootu leen naw malheureusement rek la olof waxoon moo lay dimbali mooy fa ndox daan taa ba tey soo fa demee fekk fa tepp-tepp bu woon loolu noo yow boo amee sax say doom ak say njaboot dootoo leen dootoo leen bëgg dugal école ñu jàngi nasaraan ngir yow ñi nga gis ni tey ñoom lañ fiy tuddee ay cadre ay haut cadre ay intellectuel ay diplômé li ci gën a garaaw mooy ay mag la ñuy doon teg ci ñu leen di tudde kilifa ngay gis ñuy jëf ay jëf yoo xam ni di wax ay wax yoo xam ni yow li nga leen di bëgg a laaj rek mooy mais yow kilifa gi xanaa amoo ay doom mais xanaa amoo ay jarbaat xanaa xamoo ni am nga ay rakk te ñoom ñëpp dañuy soxla référence te yow la war a doon mais bu dul dara sax ci biir administration bi ngay liggéeyee xanaa dina am sax ay stagiaire bokk xanaa dinga am mais nga sóoraale ñooñu ci lenn li ci ay kàddu ak i jëf kilifa yi war koo jomb te li gën a nag doy waar mooy tey kilifa yi rek ñoom ngay gis ñuy def ak nga leen di dégg ñuy wax mbir yoo xamante ni nii ku ci noppi rek fàq yarta ngay bëgg non vraiment doy na waar quoi léegi nag pour gën a rek confirmer loolu pour nga xam ne ñoom seen vérification bi dama xamul ñoom kon ndax liggéey mu leen fa bàyyi

nañu wax ab ayib kañ a jot chèque bi waa ji moo accueillir ayib ak huissier bu mu àndal dalal leen may leen kafe yóbbu leen ci kees bi ñu versé waa ji bind ayib Mohamed Ayib Salim Daffé mandataire candidat Ousmane Sonko coalition son co-président 2024, montant 30 millions. Objet, caution pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il gisul mu circulé quittance bi. Mhm. waa ji bonne chance. li may wax nii du ay caaxaan de c'est les faits ne ko bonne chance. c'est pas lui qui a la décision. déglu rek. ne ko ne ko bonne chance. ayib génn. say naataangoo ne dañ koy tendre micro. ayib ne dafay décaler bu ne ko noo taxaw ci estrade bi fii nga def sa déclaration. déclaration. ayib génn. mu publier ko dans sur sa page Facebook. Mhm. dem assemblée. Mhm. defaat une déclaration. Mhm. xam nga. dans la presse pour ne Ayib déposer mais nañ ko Ayib. ba wax ak ni Sénégal. chèque bi max la max la. Sénégal. muy ay Mamadou Lamine jërëjëf jant xam nga tey le minimum rek euh, Matar Diop bi génn nii doon wax waroon na mën a muñ comme joxe na quittance ba pare xaar ba trois jours yi jot ba mu war a joxe attestation boog sax mu jéem a rectifier lan moo ko ko teree mën a def pression pression moo ko ko mën a teree def mais jaroon na sax xaar boog ba war a ayib war a ñëw troisième jour soixante douze heures après ngeen war ko defal attestation ngeen rectifier sax boog erreur bi moo gënoon jàkkaarloog nit ñi di wax da ngeen a juum en tant que administration dëgg la nit ko du juum amul mais bu dee njuumte la kon ñun dañ ciy gën a xamaatee ni kon ndeke ku mës a jiiñ gouvernement Macky sàll cuune gis nga ne ko Cheikh Omar Diagne doon waxee di wax ni gisul ku gën a cuune le président Macky Sall di wax ni gisul ku gën a cuune gouvernement président Macky sàll bu fekkee lii fekk na la fi rek yëg nga ko rek automatiquement sa xel day dem ci waxu Cheikh Omar Diagne xanaa kon lu bon bon bon ñi nga xam ni tey ñoom ñooy xalaatal Macky Sall comment faire pour mën a di fexeel Ousmane Sonko ba du bokk ci fépp fu ñu mën a toll kon ay cuune lañ. kon moom président Macky Sall bu dee moom moo koy xalaatal boppam kon cuune la bu fekkee gouvernement qu'on kon ay cuune lañu parce que le minimum waron nañoo sax mën a kon préparer mbooleem fu Ousmane Sonko war a jaar ba ca CDC xamal leen ni leen kuñ naan Ayib Daffé bu ñëwee ndawal Ousmane Sonko la bu ñëwee bu leen ko recevoir mais yow nga recevoir ko jox ko café mu naan dalal ko encaisse sa xaalisam l'essentiel a été fait mooy. Euh, numéro fiche parrainage am moo ci am solo nga jël ko defaral ko quittance remplir ko jox ko mu dem mu bëgg def conférence de presse nga ne ko noo jarut ngay mën nga taxaw fii def ko yow vérifier go yow vérification foofu yëpp defoo ko fa ba mu def conférence de presse defoo ko fa ba mu jógee fa dem assemblée ba annoncé nouvelle bi defoo ko fa ba yow loolu mais kon léegi kon ñoom kon muy wane ni encore aussi suñu administration yi liggéeyuñ non ñiy wax ne nag Sénégal du réew wax nañu dëgg te même bu dee du réew ci ayu Macky sàll ci la gën a ñàkk a doonati réew lafi fi dese woon kas néew pour ñu mën a wax ni sax lii moo tax mën nañu wax ni réew la kas néew Macky sàll salfaañi na ko jaxase na ko yàqate na ko administration yi ñu ci ëpp solo tey ci réew mi te tey ñi ngi leen di def comme supp kànja kenn xamatul kan mooy kan léegi nag. moom Matar job boo ko dégloo rek da ngay rus gis nga bi ko journaliste bi laajee dama leen koy sax tegal ñu déglu ko li mu tontu rek ci ngay xamee ni kii moom li muy wax moom en personne xam na ne li muy wax non c'est grave. vérification vérification fa lañ ko defee sur la liste. Euh, des gens qui ont le qui ont le numéro de parrainage la ñu jël non service technique jël ko. direction des élections ñoom ñoo ñu envoyé normalement xam nga ce processus la. Mm. direction des élections moom moo ñuy jox.

parce que dafa ni normalement normalement waxin boobu noonu waxin boobu affirmé ci ni la euh, de facture dafa passé. na trois jours ma bëggoon ko fay ci sama compte Wave est-ce que dina normalement normalement boobu dëggaloo ni moom dina jàll mën mais limi firi mo yakarna xolam mom biñ ko laaje xana euh, DCE kon mo len wara meuna jox lu len permettre ngeen ni Ousmane Sonko bokul ci euh, liste yi dafa ni normalement leg xolal tay fiñu ag tay ci doy di suñu rew mi ki nga xamni mo ñu waron wax niñu ñu procédure bi ni lay tëddee mo taxaw na normalement nga déggé ci lan moy nga déggé ci ni mom en personne limi wax da ngay xamni wax ji taxawul. la preuve que taxawul moy nee ñom dañuy def vérification effectivement buñ ko defee buñu ñu ni yow bokko ci liste électorale bi duñu la mëna jox quittance duñu mëna a sa xaalis mais léegi kon yeen xana liggéey bàyyiwu leen foofu seen vérification bi dafa yéex lool xoolal tey li jante wax lépp mu am fa ba noppi vérification foofu yëpp mënu faa amee wëlbatikuwaat ngeen mën a wëlbatikuwaat ni nit ñi yéen da ngeen a ma da ngeen a juum ma après ngeen soog a vérifier kon administration yi lii mooy wane ni ñoom ñëpp liggéeyuñ parce que ñi leen yilif ñoo njëkk a ñàkk liggéey kon ñoom ñiy liggéey duñu liggéey da nga ciy déggee sax est ce que kii nekkul weer ba weer moo ko fay indi liggéeyul boo demee sax maitriser wul loolu sax ngay déggee ci ay waxam day mel ni ku maitriser wul koo xam ni fi mu taxaw di wax ak ci li muy wax xamu ko terrain bi daf ko fi bàyyi mais c'est grave ce qui se passe dans notre pays c'est grave c'est malheureux niveau bi ñu wàcc suñu réew mi doy na waar ci ay question politique ci ragal adversaire politique kese nag waral li lépp non yàlla xam na ni ñun xawma lan lañu rëccuwul mais gouvernement bi nii actuel bi di daw nii gouvernement bi ñu gën a rëccu ci gouvernement yi fi mës a jaar yépp ma suñ gouvernement bii lii yàlla nañ ci yàlla génne ak jàmm yàlla muccal ñu ci loxol ñi ak jàmm yàlla ñu ci yàlla dimbali fan gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yàlla ñu ko yàlla bari defal ba beneen yoon incha allah.